wasalaatu wasalaamu ala asrafi alambiyaai walmursalin sayidina wa mawlana muhammadin alamin wa ala alihi wa saxbihi ajmain laqin lisaani waxlulan minhu alwaqat wajcalhu zaakiran wa shaakiran abad wajcal kalaami raashidan wa murshidan wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen balu àq te di leen baal di ñaan suñu borom bi subhanahu wa taala mu boole ñu jéggal ni ko baaxoo ànd ak ci suñu émission bi nga xam ne moo moom la ñu tuddee jataayu xam-xam ñu ci fàttalenteendoo ak yéen lenn ci mbindum sëriñ bi radiyallahu anhu te suñu bind yi mujj yëpp ñu tolloon ak yéen ci téerab sëriñ bi radiyallahu anhu bi nga xam ne moom la tudde jazbatu sixaari an lay bind xidmatil muxtaari suñu bind bi mujj ñu ngi woon ak yéen ci bunt bi nga xam ne ci la sëriñ bi radiyallahu anhu di moom la sëriñ bi radiyallahu anhu jagleel malaaka yi di wax ni nga xam ne noonu lañu leen war a gëme waaye itam di ñu leeral ñi nga xam ne dañ leen a war a gëm ci ñoom ci ak teqale euh, kon suñu bindub tey fi muy jëm mooy euh, bunt bi nga xam ne moom la sëriñ bi radiyallahu anhu def te jagleel ko téere yi nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa wàcce Eh, ci yonent yi téere yooyu seenub lim ak yan lañ ci war a gëm ci ak teqare kon téere yooyu ci lañuy eh, dugg ak yéen ci bunt boobu moom la sëriñ bi radiyallahu anhu tuddee at taarifu bi kayfiyatil imaani bil kutubi al munazzalati allamana allahu taala mu ne bunt bi mooy bunt bi nga xam ne mooy xamle naka lañu war a gëme téere yi nga xam ne moom la suñu borom bi subhaanahu wa taala wàcce waaye itam ñi ngi ñaan suñu borom bi subhaanahu wa taala mu xamal ñu mboot yi nga xam ne moom la téere yooyu làmboo waaye ndigle yi nga xam ne moom la téere yooyu làmboo ñu ngi ñaan suñu borom mu xamal ñu ko bañ ñu mën koo jëfe waaye tere yi nga xam ne itam moom la téere yooyu làmboo ñu ñaan suñu borom mu xamal ñu ko ba ñu mën koo moytandiku sëriñ bi radiyallahu di wax ne imaanukum seenu ngëm bil kutubi ca téere ya al munazzala yañu wàcce tasdiqukum mooy seenuk dëggal wala moo seenuk dëggal seen bi annaha naka ñoom téere yoo yeeday munazzala lu ñu wàcce la min rabbikum mu ci seen boroom wa annama fiha ak naka lépp loo xam ne nekk na ca téere yooyee jamia mboole seen xaqun dëgg la yadullukum dana leen tegtal ala xawlil badian ci waxi aji fent jamono te mooy suñu borom bi subhanahu wa taala kon sëriñ bi radiyallahu na seenu gëm ci téere yooyu nga xam ne moom la suñu borom bi subhanahu wa wàcc day mooy ngeen dëggal ko ngeen dëggal ne téere yooyu suñu borom bi subhanahu wa taala ko wàcce waaye mooy téere yoo xam ne itam ci suñu borom bi subhanahu wa la jóge te lépp loo xam ne itam moo nekk ca biir téere ya ngeen dëggal ko te gëm ne lépp waxi suñu borom bi subhanahu wa taala kon war ñoo gëm ne téere yooyu suñu borom bi subhanahu wa taala moo ko wàcce ci ñan la ko wàcce mi ko wàcce ci yonente yi alayhim salaam waaye itam lépp loo xam ne téere yooyu indi nañ ko muy loo xam ne dafa jëm ci lu ñu suñu borom bi subhanahu wa taala di digal ñu dëggal loolu waaye itam lépp loo xam ne dafa jëm ci lu ñu suñu borom subhanahu wa taala di tere itam ñu dëggal loolu te it euh, ko bu baax a baax te lépp loo xam ne téere yi andi nañ ko ci ndigal ñu sax ci di ko jëfe waaye lépp loo xam ne itam téere yi andi nañ ko ci loo xam ne suñu borom subhanahu wa daf koy tere di ko wattandiku loo itam ñu wattandiku ko mu newal fil alwaaxi ma nga tukkee ca alluwa ya mooy ca lawxal mahfuz unzila la ñu ko wàccee waaye wal baax di yenn ca téere yooyu unzila wàcceef nañ ko fil alwaaxi mu jóge ca lawxal mahfuz kama unzila nekk ñu wàccee yenn ya bi alsunil amlaaki ci làmmiñu malaaka yi baadoha yenn ca ñoom téere yooyu sama yëkkatiku ni ñu ne téere yooyu day yenn ca téere ya suñu borom subhanahu wa taala moo ngi ko wàccee direct ca lawxal mahfuz wàcce ko ci yonente yi alayhim salaam am ci yoo xam ne nag ci làmmiñu malaaka yi la ko suñu borom bi subhanahu wa taala jaarale waaye téere yooyu yëpp nga war a gëm mooy yi nga ci xam ak yi nga ci xamut yëpp danga nga war a manchéle gëm yëpp ndax suñu borom bi subhanahu wa taala loolu la ñu euh, digal comme dañuy gëm leen téere yi euh, kon amut bu ci ciy xàjjale ak bu ci ciy gëm ak bu ñu ciy waaye yëpp la ñu war a boole gëm ko moo xam yi nga xam ne suñu borom da ko wàcce jële ko ci lawxul mahfuz wàcce ko ci yonent yi wala moo xam yi nga xam ne suñu borom dafa jox malaaka yi rek ñoom ñu wàccee ko ci seenu làmmiñ bu mu ci mën di doon yëpp lañu ñu war a euh, gëm ne adaduha seenu lim xadun téeméer la ak ñeent bi daalin muhmali ci daal gu ñu wal xaaf ak xaaf àndal olama fa waram xam-xam ya al kummali ya di way mat nee na téere yooyu nga xam ne moom la la sëriñ bi radiyallahu anhu di leeral da ko war a gëm euh, seenub lindey téeméer la ak ñeent mi ngi toll ci ak ñeent téeméer ak ñeent la limub téere yooyu toll waaye li nga xam ne moo ci gën a siiw mooy ñeenti téere yi te dina la dikkee ci ak teqale benn téere bu ci ne ci kan lañ ko wàcce woon fa unzilat ne na wàcceef na yaa un fukk ala abina ci sunu bàyyi di aadama alayhi salaam summa ala si sa topp ci si ibnihi doomam xam suuna juróom fukk summa ala idrisa topp ci idrisa laamun fanweer wa ala xalilihi topp ca soppeem ba di seydna ibrahima alayhi salaam kay aji dëggal yaa un fukk onqilaa xelloof na ko nee na téere yooyu nga xam ne mooy téeméer ak ñeent fukki téere yi ña ngi ko wàcce woon ci suñu bàyyi aadama alayhi salaam yeneen juróom fukki téere yi ñu wàcce ko ca doomam di si sa yeneen fanweeri téere yi ñu wàcce ko ci idris alayhi waaye yeneen fukki téere ya nga xam ne moo ci des ñu wàcce ko ca euh, ka nga xam ne mooy ibrahim alayhi salaam kon loolu boo ko boolee mooy doon téeméeri téere yi téeméeri téere euh, yi nga xam ne suñu borom bi taala wàcce na ko ci yonent yooyu di suñu baay adama ak doomam di Siisa ak Idris alayhi salaam ak Seydina Ibrahima alayhi salaam kon bu fukk yooyu bu téeméer boobu jàllee day des ñeenti téere moo tax mu ne fa haasihi yii mu la tuddal alxaafu moo di xaaf gi mooy tolloo xaaf gi di téeméer wa xarfu daali arafu daal gi nag tolloog ñeent uzhiru danaa ci feeñal ramzaha ab ab ab ab mandargaam li kulli képp koy aji jàng nee na lim nga xam ne moom la tudd ci kaw day mooy tolloog arafu xaaf nga xam ne mooy wàññi téeméer xarfu daal gi nga xam ne mooy wàññi ñeent nag nee na dinaa ko leeralal képp koo xam ne aji jàng nga arafu daal googu moom lay reeral mu ne tawraatuha tawraatam ba xad ixtawaaha làqoon na ko musa seydina Muusa alayhi salaam kasaaniki noonu ixtawaa na al injiilu téereb ba xàqan ci dëgg Isa seydina Isa alayhi salaam summa topp na dawda alayhi salaam azzabuura téereb zabuur ba baana feeñ na summa xawaa topp mu làq sayiduna sunu sang alfurqaana alquraanul karim muhammadu moo muhammad alayhi yàlla na nekk ci moom xayru salawaati ngën gi dolli xiiwal summa alayhim topp yàlla na nekk ci ñoom ñépp di uh, yonent yooye wala sirbil huda ak ci yoonu uh, ak képp koo xam ne yaa ngi ca yoonu woy jub ña ñoon ñëpp yàlla na suñu borom subhanahu wa taala defal leen xéewal bu sax dàkk kon ginnaaw bi nga xamee ne leeral na téeméer boobu ci yonent yi nga xam ne ñoom la ko wàcce mu leeral la ñeent yi nag ci yonent yi nga xam ne ci lañ ci ñoom lañ ko wàcce ñeent yi benn bu ci ne ci yonent bi euh, yonent ko wàcce bu dee tawraat ñi ngi ko wàcce woon ci seydina Muusa alayhi salaam bu dee injil ñu wàcce woon ko ci seydina Isa alayhi salaam euh, mooy téere bi nga xam ne moom la euh, chrétien yi di topp seydina Isa salaam bu dee zabour nag ñu ngi ko wàcce woon ci seydina daawda alayhi salaam alquranul karim bi nga xam ne moom lan wàcce ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam kon loolu mooy li nga xam ne mooy leeral arafu uh, daal gi nga xam ne kon ginnaaw bu wàccee téeméer ba ci ñeenti yonent yërëmu mula ci jëkk a tuddal yeneen ñeenti téere yi nga xam ne moo ci desoon uh, yooyu moom dala tuddal ci ak teqale benn bu ne ci ki nga xam ne uh, ci moom lañ ko wàcce moo tax mu ne waxat jaraa daw na at tafsilu teqale ga fil imaani ca gëm aydan ba tey bihim ci e, téere yooyu anda zawil irfaani ci woroom xam-xam kon téere yooyu moom danga ko war a xam ba pare gëm ko ndax téere yooyu benn bu ci ne yonent bi nga xam ne ci moom lañ ko wàcce woon dañ ko wàcce woon ci moom ngir mu e, leeral ko aw xeetam jàngal leen li nga xam ne moo ca nekk ci ay digle waaye itam jàngal leen la nga xam ne moo ca nekk ci ay teree waaye tere yooyu nag li euh, am am solo li nga xam ne moom la ci suñu borom subhanahu wa taala wàcce woon lépp daf koo jëlaat euh, dëxëñ ko ci biir alquranul karim moo tax mu ne ma farratna fil kitaabi min shay maanaam alquranul karim suñu borom subhanahu wa taala euh, bàyyiw bàyyiw ci dara lépp mi ngi ci biir alquran maanaam lépp a ngi biir alquran kon alquran mbooleem li nga xam ne moom la téere yooyu andi woon doon ko digle ak a tere lépp suñu borom subhanahu wa taala daf koo jël dugalaat ko ci biir alquranul karim waaye nag gëm alquranul karim tekkiwul ne dañ ke war a yem dong waaye téere yooyu nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala leeral na ko itam yëpp dañ ko war a gëm doonte ne euh, xam xamuñu leen waaye xàmmee ñu seenu teqale xamuñu lu ñu tudd itam teewut ñu war leen a gëm mu ne fa fasilu teqale nan al arbaata ñeenti ya al muxallafa ya di way mujj wal tujmilu na ngeen bëbësal al bawaaxiya ya di aji des al musallafa ya di aji jiitu nee na ngeen teqale ci ak ngëm maanaam bu ngeen di gëm ñeenti téere yi nga xam ne moo mujj moom la leen mujj wax sëriñ bi radiyallahu anhu nee na na ngeen ko teq teq teqale na ngeen ko teqale te gëm ko noonu ñu leen ko waxe xam itam téere bu ci nekk ci lañ ko wàcce waaye yeneen yi nga xam ne moo jiitu moom mën nañoo xam lim bu ne ci yonente ba nga xam ne ci moom lañ ko wàcce rek ci ak bëbësal gëm ko waaye nag du jaar ñu cay nekk di teqale euh, ci téere yooyu ci naka lañ ko wàccee ak lana ca nekk gëm ko daal mooy li nga xam ne moom lañu ñu sunu borom subhanahu wa taala sant moo tax mu ne wa kullu man ankara képp ko nga xam ne weddi na shay an dara xat sabata lool sax na minalati ca la nga xam ne daruratan gëm ko lu mënta ñàkk na xanoo li mat jog xameef na ko fa kaafirun aji weddi yàlla la ne na képp koo xam ne nag euh, weddi nga lenn ci loo xam ne dafa sax te ñu war koo gëm ci téere yooyu na nga xam ne aji weddi suñu borom bi subhanahu kon lépp loo xam ne dafa sax ci téere yooyu ñu war koo gëm kenn waru ko weddi lépp jullit bi daf ko war a gëm comme ni nga xam ne noonu la ko ko suñu borom bi subhanahu wa digale waaye nag amalet yi daal la nga xam ne lamton lama ma xamee fut daruratan euh, euh, ak ak ak ak waram wala ak lu mënta ñàkkam faman képp ka nga xam ne intama askanoona li nukkuri xaa ci ak weddeem fa laysa bil kaafiri déet mu di ab yéefar bal li fi def ko koy xamal haza lii mooy la nga xam ne naqalahu toxal na ko man mi nga xam ne alimu euh, gëstu nañ xam-xam nee na li nga xam ne nag ci téere yooyu moom deefut ne xam ko lu mënta ñàkk la loolu képp koo xam ne weddi nañ ko weddi na ko dañ ko koy xamal rek waaye du tax nag ñu tudde ko ku weddi suñu borom subhanahu wa taala kon li nga xam ne moo ci mënta ñàkk ci téere yooyu muy ñeent yooyu nga xam ne moom lala la yooyu moom dañ ko war a gëm xam ci yonent yi nga xam ne moo ñoom la ko suñu borom subhanahu wa taala wàccee yeneen yi nga xam ne nag mooy téeméeri téere yi jiitu te mu wàcce ko ci yeneen yonent képp koo xam ne da ko koo weddi te sa ñàkk xam rek moo tax nga weddi ko dañ lay xamal ne téere yooyu suñu borom subhanahu wa taala wàcce woon na ko ci ay yonent rek euh, nga gëm ko comme ni nga xam ne noonu la ko suñu borom subhanahu wa taala diglee waaye sax kenn du la sant nag nga jay nekk di teqale wala yi ca aju gëm gi daal mooy li nga xam ne moom la la suñu borom subhanahu wa taala sant nga bañ koo weddi kon loola mooy la nga xam ne moo cay warteef te moo cay warugar kon loolu mooy li nga xam ne moo aju ci téere yi nga xam ne euh, bépp téere boo xam ne suñu borom subhanahu wa taala na ko ci yonent yi rek doon bu doonte ne xam nañ ci yonente bi ko wàcc wala xamuñu ko wala xam nañ téere ba na mu tudd wala xamuñu ko ñoo ci yem dañ koo war a gëm waaye nag li nga xam ne mooy ñeenti téere yi nga xam ne moom dañ ko sëriñ bi radiyallahu anhu dañu koo teqalee yooyu moom dañ ko war a euh, xam ci ak teqale waaye tamit xam ci yi nga xam ne ci ñoom lañu ko wàccee waaye jiima xam li nga xam ne moo ci nekk ci ay ndigle ñu koy topp kem suñu kartan waaye jiima xam li nga xam ne moo ci nekk ci ay tere euh, ñu bàyyi yépp rawatina alquranul karim li nga xam ne suñu borom subhanahu wa daf ko wàcce ci suñu yonent ba pare digal ñu lépp loo xam ne moo ci ne ci ay digle lañu jëfe ko waaye lépp loo xam ne moo ci ne ci loo xam ne suñu borom subhanahu ko kon loolu mooy li nga xam ne moo aju woon ci téere yi ñoo ngi tuub bu baax tey jégglu di wax lu ci jub ci kàttanu suñu borom la lu ci dëng ci suñu ko ñàkk a mën a jotal la in uridu ila al islaha ma stata'tu ma tawfiq illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu